jërëjëf mbokk yi mu mel ne dellu si waat naa fii nag ci pale bi tubaarkàll fii nag bu leen fàtte ne fii la king of the king nekk la maréchal waaye le roi médecine traditionnelle du monde nga xam ne tey tubaarkàll dafa dekkaate xaalis bu bari wut xar mu mag a mag a mag mag def ko fii ci kër gi ak baabu Babou tubaarkàll ci biir waañ ñu togg cere ju bari waaye nag bu leen fàtte ne saw tubaar tubaarkàll laa ren tey 7 heures fekk na mu pare cere ji tubaarkàll sëriñ bi fanaanee ñaan moom mu nekk ci waañ wi tubaarkàll defar cere ju baax waaye nag ma war a dugg ci fii nag tubaar tubaarkàlla fekk ko fi fekk fi rahmaan ak rahim waaye nag tubaarkàlla fekk fi soxna Oumy waaye kàll ngeen topp ma ak sama caméra ma daal di dugg ndànk rek daal di gisee sëriñ bi tubaar tubaarkàlla macha allah ay ca bismillah waaw la maréchal nag tey moom dugg si naa si pale bi nag waaw tey moom dugg si naa fi nga xam ne tubaar kàll mooy pale bi gis nga nag pale bi tubaar tubaarkàlla da ko décoré <laughs> cey la Mare Sarr xoolal ma lii fii mooy entrée bi waaye fële nag tubaar kàll mooy salon bu mag bi waaw salon d'honneur baa ngi noonu tubaar tubaarkàlla nga gis tableau yi nga xam ni yëpp tubaarkàlla Dubaay la ko jëlee <laughs> lii jógewul ci réew mi yii tableau doo ko fi gis gis nga ko nii tubaarkàlla ak ay xeeti parfum yoo xam ne ñëwal ñu dem yow sama caméraman bii nag xoolal ma lii jëlal ma tableau boobu kàll fii nag fi la la Mare Sarr nekk fii tubaarkàlla gis nga ma nii tablo yi noonu yii tableau du tableau fuluy fayant de <laughs> waaw cëy la Mare Sarr tubaarkàlla mu mel ne nag yegsi naa fi nga xamante ne tubaarkàlla mooy nag daj dëpp gi tubaarkàlla gis nga tablo yi noonu tubaar tubaarkàlla yi jógewul fii de ca Dubaay yi tubaarkàlla xoolal ma seetu bi dama xool saa bopp doo bunt bi nga xam ne fii la la Mare Sarr nekk tubaarkàlla ki nga xam ne moo galajaane national bi waaye galajaane li nga xam ne mooy international bi ku koy alaaj ci nu mu lay sow borom kun fa yakun borom duwaa jaabi tubaarkàlla sëriñu madame Sow laa ren waaye bàyyi rahmaan ak rahim tubaarkàlla di koo xam ne ku yàlla baaxal la tubaarkàlla ngeen dégg léegi ni ko sécurité bi waxee ne aka man kan te mën teraanga te bëgg doomu aadama koo koy alaaj ci nu mu lay sow ma daal di laal bunt bi ndànk giseeg la marisaar xool li nga xamante ne tubaarkàlla moom la madame Sow tubaarkàlla laa ren def defe naa ne jéeg ji tey ay 5 heures lañ pare waaye moom 7 fekk na mu pare ci rek ñeex kookoy dàllinkoo nag kooku nag mooy séri ajaratu ndey seex tubaarkàlla waaye nag kooku mooy yaay raxmaan ak raxiim xaaral ma dugg ndànk tubaarkàlla waaw ndeysaan defe naa ne nag yegg si naa fi nga xamante ne mooy buntu la marisaar waaye yegsi naa fi nga xam ne tubaarkàll mooy palais bi waaye yegsi naa fi nga xam ne fii la la maréchal nekk ki nga xamante ne tubaarkàll moo téye national bi waaye téye li nga xam ne mooy international bi tubaarkàll waaw defe naa ne la maréchal tey dugg si naa de journaliste yi dañoo sob de tey moom ñëw nañ seet si la maréchal tubaarkàll mu mel ne tubaarkàll defe naa ne fii macha allah ah fi la la maréchal nekk nag tubaarkàll fii nag ndeysaan tubaarkàll fi la sëriñ bi di defee li nga xamante ne tubaarkàlla mooy nag reer ndax defe naa ne lii moom defe naa ne madame Sow ko fi teg ndax defe naa ne jeg ji 5 heures ak 6 heures lañ pare waaye moom 7 heures fekk na mu noppi ndeysaan waaye tubaarkàlla ah la mère Sarr fii day daa mel ne maa ngi fiy doog a dugg nag waa bagage yi moom nu mu demee nii moom. waaw fii mooy néegu madame Sow. mooy ah. mooy mooy Sambra macha allah. macha allah mooy néegam waaw. ah lii moom. gars yi day lii de moom caméraman topp ma tuuti rek xoolal nii rek tubaarkàll ci lii waaw la mere Sarr le jeune milliardaire la marabu king of the king king all the ah, lamp yi monté guñ ko gis nga ko lamp yi noonu tubaarkàll waaye moom daa amaale kii ci kaw de est-ce que yi amaale seetu ndeysaan tubaarkàll ah fii moom tubaarkàll jëlal ma nii ah tubaarkàll macha allah ah king of the defe naa Dubaay day waa Dubaay danañ la namm de ndaxte lali cinq millions dix millions sept millions moom. Mm-hmm. waa Dubaay danañ la namm de. waaw noonu la noonu la xam nga lépp pour doomu aadama yi la rek. pour pour teral soxna yi xam nga mm-hmm. vraiment teral ko. macha allah macha allah ba ñu demee Dubaay ci laa ko jëndal lal bi. macha allah vraiment macha allah jëndal ko ay bagages yu bari. Mm-hmm. macha allah. muy loo xamante ne nag tubaarkàlla lu am solo la. ndeysaan. macha allah ñu gën a bëgg nag kontaan waaye tey nag daa mel ne madame Sow la génn. tubaarkàlla macha allah muy lu am solo waaye defe naa ne tey nag xol sedd na guy nag ndax defe naa ne jéeg bi tubaar tubaarkàlla sept heures tubaarkàlla fekk na moom mu pare reer moom tubaarkàlla macha allah ndeysaan waaw waaw macha allah ñuy ñuy am mbégte contentement bu baax a baax nag ci ñëw fii waaye daa mel ne ah la Mare Sarr ah tey moom xam naa ne taalibe yi yéen ngi may xool en direct tubaarkàlla maa ngi fii nag ci pale bi tubaar tubaarkàlla waaye defe naa ne fii laay tàmbalee. waaw kii moom reeru Vizini Traoré. ndeysaan kii reeru Vizini Traoré Adama Moule. defe naa ne macha allah ci jox nañ leen xar ah. waaw waaw jox nañ xar ci suuf de. tubaarkàlla joxoon nañ ma xar xar. macha allah moom lañ defar ci suuf. ndeysaan mais madame Sow dafa dafa tàmm di leen yekkal. dëgg la waaw macha allah loolu reeru Vizini la waaye. ah kii la. mën naa ko pousse nii moom. tubaarkàlla Adama Moule. waaw ah. moom seen reer ah, bii nag nee na saw tubaar tubaarkàlla moo ko yàkkal sécurité bi tubaarkàlla ah kii ca ci ak taalibe yi ci suuf ak journaliste yi macha allah ah madame Sow fi mu génn nooy na fii nooy na ah bii nag ah. Ah, la Mare ak soxna ummi ak Mada Sow ak taalibe yi tubaarkàlla ñoom prince tubaarkàlla un ak deux. macha allah macha allah ah xool sedd na guy ndax defe naa ne nag tubaar tubaarkàlla la tubaar tubaarkàlla gis ngeen fii laa ñëw nag ci pale bi ndeysaan tubaarkàlla mu dalal ma fii won ma reeru Adama euh, Virginie Traoré waaye ak reer yi nga xamante ne ñooy sécurité yi te terewul sëriñ bi rey na xar mu mag tubaar tubaarkàlla defe naa ne cere jaa nga ci suuf di xalaat ñoo waaye madame Sow lii la miin. bu toggee tubaarkàlla balaa am jàmm daa yàkkal sécurité yi waaye daa sa daa yakkal taalibe yi waaye daa yàkkal ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi di liggéey defe naa ne nag waxoon naa ko ndax wax waxaat du bari wax waaye nag man dama di waxande wun defi wax te ki ma def waxande ndeysaan tubaarkàlla mooy jëm ji taxaw di alaaj ca nu mu lay sow mu koy njukkalee sama baat bii ndax aw ma xaalis bu ma ko jox waaye aw ma alal ju ma ko jox waaye sama baat bii maa ko moom sama doole ji maa ko moom tubaar kàll ma fas yéene ko ci liggéeyal tubaar kàll ba keroog may sàngoo suuf muy ku baax sécurité yi tey dama leen a jooyloo am na ci ñoo xam ne tey dafa woon naa ne lii newul ci ñoom ndekete ñoom ñëpp ku ci nekk rek am na loo toogaale tey sama yaram dafa daw plateau bi su yàggoon tuuti rek foofu jaxasoo ndeysaan bari na ñu ci wax ba ba nar a tuur xéwal ma dama xam ne man ndekete da man damaa bari wax di wax rek waaye ndeke am na ñu ma gën a rakkaaju nekk ci kër gi muy sécurité tubaar tubaarkàll nee nañ sëriñ bi bu laajoon bakkan sax ñu joxe sunu bakkan ñoo ñooy sécurité bi li commencé si Konaate Diop ah Aline Baye Cheikh ah ab laay tubaar tubaarkàll tey xol sedd na guyu waaye la tubaar tubaarkàll defe naa ne tey tey jii mule muley seen xol sedd na ndax defe naa ne madame Babou ak ki nga xam ne mooy Adama Virginie Tarawale ak Mouhamed tubaar Toubarkalla ñi ngi ci suuf boobu ba tey waaye daal nee nañ luñ la sant doyut ma bëgg nag national bi may seetaan ak international bi jëwrin ajaratu xadi buub waaye jëwrin euh, euh, ajaratu xadi ba tubaar tubaarkàlla ak mule mule yëpp ci national bi waaye nag ma dugg fi nga xam ne mooy international di nuyu tamit taalibe alaaj ceenu mulay sow yi tubaarkàlla yafa ne waaye di nuyu Gàmbi waaye di nuyu Mauritanie tubaarkàlla di nuyu ku mel ne ñaama soirée tonton sow tonton tubaar tubaarkàll waaye du nuyu ki nga xam ne mooy Fama tubaar tubaarkàll ak dikkel Dikel tubaar tubaarkàll di leen wax ne seen sëriñ bi dafa tina jaloore ndax defe naa ne ak Fa Bakary Sonko tubaarkàll waaye defe naa ne tey jii ah ndam feeñ na ndax defe naa ne ba nga dalee wax man a ba tey tubaar tubaarkàll muy yow kon loolu la yàlla dogal di jàmbaari lislaam di jàmbaari Seydina Mohamed defe naa ne nag bëggumaa jël temps ndax defe naa ne fi mu ne dafa tàmbali bëgg a xewlu ma bëggoon rek nga nuyoog national beek ak international bi ndax suba teel gis nañ ñuy partagé say vidéo nga leen di ñaanal tubaarkàlla waaw kay akasa waaw ngeen gis noonu nag ma ànd ak la Marie Sarr tubaarkàlla bëgg a jàkkaarloog moom mu am tuuti rek loo xam ne macha allah dana ko sànni taali yi partout dans le monde ñu koy dégg bërki démb dama am lu ma yéeme loo xam ne tubaar faaw ma di ko wax ndax defe naa ne chaque jour rek ma ne damay ñeme di wax ci moom ndax tubaar tubaarkàlla lu ma wax rek mu indi firnde li wala lu ma bëgg wax tubaar tubaarkàlla mu indi firle li kooku nag mooy alaaj ceen lu mu lay sow borom kun fa yakkoon waaye borom duwaa bi waaye di ki nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa moo ko may li mu yor li dawloo sama yaram première question bi mooy ndeysaan bërki démb dañoo toog émission li ci jinne am ku la posé question ci sama nattangoo yi muy Moustapha nga ne ko accident yi dara amagul waaye day dana metti lool accident yu bari ñoo nar a am waaye yu garaaw nag waxuma la dara waaye li ci nar a ñàkk bakkan ñoo bari ñu xëy la lendemain dégg accident vingt personnes mortes mu nekk lu doy waar sëriñ bi question boobu rek laa bëgg a tijjeeg yow doog laaj nag ci yowmal assura bi jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi min asheytaani rajim wala xawla wala xuwata illa gannaaw bañ santee suñu borom nag ñoo ngi julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gën di mbindeef di suñu yaakaaru tey ak ëllëg gënal ñu suñu ndey gënal suñu baay gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna bi vraiment di baalu ñëpp àq ci weer bu tedd bi di weeru asura di weeru yërmande vraiment di atu di atu jullit ñi xam nga ne mooy suñu mooy suñu fin d'année mooy asura vraiment di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwéni déwén di baalu àq madame Sow la reine macha allah ñoo ngi koy nuyu ak soxna ummi ak suma goro soofi ak euh, vraiment ñoom bàjjen vraiment sébi yëpp vraiment ajaratu Mariama Kamara aussi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax déggante nañ moom it ñoo ngi koy baalu àq di ko baal àq di baalu àq famille bi ak njaboot gi yëpp di la baalu aussi di baalu àq mule mule yëpp waa national wa international ku mel ni jëwriñ Fabakary Sonko jëwriñ Gallo Sow jëwriñ faamo Sow jëwriñ Dikel Sow bu ñu limee dañuy juum jëwriñ Tonton Sow vraiment ñoom Mouhamed Youssouf defe naa mu ngi fi macha allah ñoom ñoom ñaama soirée vraiment euh, ñoom Alaaji Touré bu ma limee demee juum vraiment ñoom kat yi bari ma kenn vraiment di ñëw aussi ci jëwriñ euh, Sénégal yi fii ku mel ni jëwriñ ajaratu Khadiba ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax vraiment jëwriñ ajaratu Khadi Mbuub gis ngeen barki Dembo Ndiaye kiraama yi feeñ ci kii këram gi foofu macha allah ba mu dajalee taalibe yi di leen teral vraiment ngeen gis euh, baaxoñ bi vraiment ñëw ba foofu ziar ñëw ziar ci barki sëriñ bi tey aussi ci kaw ba ñu yéegee sànq maa konaate aussi baaxoon bi ñëwaat na rencontré macha allah di leen wane ne seen sëriñ Euh, li ko yàlla defal sax xamagoo leen ko vraiment maa ngi nuyu mboole mule mule yëpp vraiment di ñaanal ñëpp jàmm muy Sénégal bi vraiment di kontaan bu baax di baalu ñëpp ak ndax euh, assura bi dafa nekk lu am solo dafa nekk suñu suñu suñu fin d'année ñun jullit ñi vraiment di kontaan bu baax madame baabu aussi mu ngi ci waañ bi defe naa ne vraiment moo géré waañ bi vraiment jox naa ko xaalis bu bëri mu dem ndugg ji ndugg bu baax vraiment macha allah taalibe yi aussi joxoon nañ ma benn xar bu mag xar def ci xarit vraiment macha allah ñoo ngi koy nuyu Diop euh, di nuyu konaate aussi di nuyu vraiment euh, ñoom Baye Cheikh di nuyu ñoom Aliou ñoom Baye Fall bu ñu limee dañuy juum di nuyu Ablaye di nuyu ñëpp vraiment di kontaan bu baax a baax vraiment fii seen kër la on est ensemble comme d'habitude rek sëriñ bi ku ko xam xam ne ne moom noonu la mel fête day bëgg di partager même bu dul fête day bëgg di partager vraiment gis ne gis nga seen reer bi am na solo madame Babou ñoo ngi France mu ngi ci kër gi vraiment jàppale ko ci waañ bi vraiment kontaan la ak mbégte Matar vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp gis nga suñu reer a ngi noonu gis nga aussi bool bi leen madame Sow jox ak boolu visini te macha allah da ngeen reer ba bàyyi cere ci suuf mais noonu la dañu xam partagé vraiment li nga wax dëgg la ndax barki démb dañ doon def émission li si jinne xam nga man tout le temps suñu borom daf may won ay mbir yi ñëw waaye du may bëgg di wax ci télé yi parce que ñu bëri dañuy di wax. bu yàggee rek mën nga mel ni ñoom moo tax en général damay réservé mais xëy na dafa rëcc keroog rek ma wax ma ma ma wax macha allahu yàlla won na ma soog accident yi métti dina am vraiment defe naa ne bu ma ko waxee lendemain bi ci lañu gis accident yi yal na yàlla vraiment euh, aar ñi ñi yal na yàlla sàmm leen ndax nawet bi jinne yi dañuy soxla dëmm yi dañuy soxla seytaane yi dañuy soxla vraiment di massaw ñi ñi deele di massaw ñi gaañu na nit ñi fagaru jóg seen bopp ndax sinon da ngay nekk sarax ndax euh, nawet gi jinne yi dañuy ràkkaaju rab yi dañuy ràkkaaju ak seytaane yi ak dëmm yi boo amul ñaan dëgg Euh, yaa ngi ci danger te defe naa ne ba ma leen waxee loolu dañoo xëy rek accident am vidéo bi sax duggagul vidéo bi sax duggagul loolu yëpp nag vraiment suñu borom dañuy won lu bari lii lii ñëw ak lu ñëwagul loolu moo tax dañuy xam lu bari waaye li ñuy noppi moo ëpp li ñuy wax buñ ci mënee def solution aussi lu bari dañuy wéet parfois def suñuy sarax pour ah, yàlla musal ñu yàlla aar ñu sàmm waaye lii dafa dafa fekk ne lii euh, njiiti réew mi war na ci mën a def euh, war na ci mën a wax aussi war na mën a def ay sarax aussi vraiment pour réew mi am jàmm taar xam naa du ma la téye vraiment kontaan la am ak mbégte vraiment di ñaanal ñëpp jàmm ni ñuy seetaan à travers TMS TV tey nii laa ko simple def suma jàllaaba bu oyof vraiment nekk ci famille bi vraiment macha allah ñu fas yéene reer def asura vraiment di nuyu mule mule yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwén i déwén vraiment macha allah gis nga tey madame Sow 6 euh, heures non non non ci la ci la ci la jóg macha allah euh, ñu nelawuñu. cinq demi ci la ci la commencé vraiment defar soosam macha allah balaa ñu naan sept heures huit mu pare ñeex mi waaw balaa neuf mu pare cere bi kon moom neuf heures demi fekk na pare na lépp. ci boo xoolee Sénégal tey ñun ñëw fi njëkk a pare reer ñoo fi njëkk pare parce que neuf heures et demi fekk na pare na vraiment mu teg lépp macha allahu euh, man maa ngi woon ci kurus bi maa ngi doon wirdu di ñaanal réew mi di ñaanal Sénégal di ñaanal aussi taalibe yi ndax Euh, fin d'année bi asura bi dafa am ñaan yoo war a def euh, pour ñaanal sa réew pour ñaanal Sénégal pour ñaanal aussi say taalibe ñi la bëgg ak ñi la sopp yal na yàlla wasaare ñaan bi yal na yàlla nangu yal yàlla defal ñu jàmm ak tawféex kon tey suma soxna defe naa ne moo njëkk a pare toggam ci Sénégal fii ci Afrique ndax macha allah bañ ne fajar Euh, ci la commencé def ñeexam ak yooyu yëpp macha allah kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax di ko ñaanal fan bu gudd bu ànd ak wër ak ay famille di ñaanal suma njaboot di ñaanal ñëpp yal na yàlla defal jàmm ak tawfeex. jërëjëf mu nekkoon ay kàddu yu bàyyeekoo ci la xalif général des jinne Alaaji Thierno Moule Sow waaye le roi médecine traditionnelle du monde waaye di ki nga xam ne mooy borom social waaye di jàmbaari lislaam waaye di jàmbaari Seydina Mohamed waaye nag kooku nag tubaarkàlla bu leen fàtte ne moo galajaane national bi waaye galajaane li nga xam ne mooy international defe naa ne jamono jii dégg ngeen ni mu ko waxee réew mi dina yëngu bërki démb plateau bi nii la ko waxee ñu xëy la lendemain defe naa ne accident bi am lu tolloog nanga minute tubaarkàlla gaañu nañ waaye kooku nag mooy alaaj ca na mu lay sow ñu lay ñaanal bu baax waaw lii nag tubaarkàlla miin nga ko ak man ndax bërki démb tubaarkàlla ci plateau bi nga di ma teral sow fu ma jaar tubaarkàlla ñu naan waaye alaaj ca mu lay sow jaa ngi noonu ma daal di jekki silvise rafet tubaarkàlla fi mu ne nag dama ko doon dagaat ñaareel nag waaye madame nee na d'accord na sëriñ bi nee na yow lay déglu fi mu ne nag alaaj Thierno lay Sow yaa ci des mu mel ne nag tubaar tubaarkàlla sama sëriñ bi yàlla na fi yàgg tànd ak wér ndax Thierno lu baax du baax ba weesu baax waaye baax bàyyi rahmaan ak rahim koo àndal woon nga ko sa ngor sama waaja Mut Sow tubaarkàlla ma nga ca bitim réew Mut Sow tubaarkàlla waa Exambul am ngeen ndam ndax kooku noonu ku ko laal baax ndax kam laala baax ci alaaj mu lay Sow la jógee maa ngi fàttaliku keroog bi ngay indi sa passeport bi sëriñ bi naan la dinañ la visel da nga dem Mor nga naan ko tey moo doon rendez-vous mu ne la Mor Sow defal li ngay def da nga dem tubaarkàlla kon defe borom kooku nag mooy borom kun fa yakkoon borom duwajaa bi ki nga xam ne bu ne kun suñu borom ne kon sëriñ ñu ngi tuub bu baax a baax ci temps bi nga xam ne jël nañ ko waaye ñu ngi bu baax a a baax a baax ndax defe naa ne fii journaliste mosu fee dugg fii maay ki fi njëkk a dugg kon sëriñ bi ñu ngi lay wax nag ah reeral ak jàmm waaye di nuyu madame Sow tubaarkàlla di ko sant sant bu baax di ko gërëm tubaarkàlla moo man ci tàngoor wi saa yoo àndeek moom génn mu ne la jëlal lu sedd kookoy madame Sow laa ren kooku nag mooy séeri ajaratu nday seex mu baax mi nga xam ne buggul xoolul ku dul alaaj ceenu mu lay sow waaye nag naa dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu yaay rahmaan ak rahim tubaar kàll ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla dooleel yàlla na woyof bi toyul woyof toy ci kawam yan bi tubaar kàll di ñaanal na ki nga xam ne mooy soxna ummi ndax nee naa leen doom ju jigéen jàngaandiwul nday jaay royukaayam waaye ku xool soxna ummi xam ne mooy woy juru madame Sow laa ren tubaar kàll ndax baax na yaru na yiw na bëgg na doomu aadama alaa coono mu lay sow li duuf ci nag wi xajul ci cin li tubaar kàll te ku ko yaruñu topp la kon sëriñ bi nga dolli ñu ñaan bu baax a baax jërëjëf sow ah, tubaar kàll nag maa ngi nii ndeysaan ci pale bi nag tubaarkal waaye nag bu leen fàtte ne nag tey jii nag ki njëkk a pere reer tubaarkal la ci réew mi kooku nag mooy ma dem Sow Laareen tubaarkal di yaay Rahman ak Rahim tubaar la di doomi soxna ummi ku baax ki waaye nag di ki nga xamante ne tubaarkal la mooy toppatoo sunu sëriñ bi alaaj ca nu mu lay sow ba namul dara gis nga fi mu génn tegal bool bi tijjil ma ko ma xool tubaarkal la gis nga fi mu génn ci cere gis nga ko nii lu ko duye ba mu fees tubaarkal def ci ndawal bu baax waaw waaw cere ko cere ju neex nga gis ñeex mi noonu tubaarkal waaye bii ci kaw nag mi ngi ko yakkal ki ñuy wax Adama Virginie Traoré tubaarkal tijjil ma bii ci kaw macha allah mu nekk cere joo xam ne cere ju cere juñ tey ba mu suus la laala ko tubaarkal la gis nga ko noonu kii Adama Virginie Adama Traoré lañ ko yakkal tubaarkal la waaw tëjal waaw jërëjëf mbokk yi ngeen gis ne nag yóbbante àq la ndax ba mu jógee ca pale ba madame Sow laa ren tubaarkàlla dàllinkoo bi ginnaaw ba mu yàkkalee li nga xamante ni ñooy waa kër gi te terewul togg nañ xar rey nañ xar togg nañ waaye partage la tàmm ndeysaan tubaarkàlla comme ni ko sëriñ bi bëggee mu yàkkal sécurité yi waaye yàkkal nag taalibeb alaaj cëll mu lay saw bu mag boobu di aadama virgini Traoré ma fekk ko nii ci apartement am fas yéene koo fëgg ndànk jox ko yóbbante bi tubaarkàlla asalaamaaleykum mi ngi ñëw soxna si ziar nañ la ah kontaan nañ de dafa mel ni dañoo jóge fële ci la maraîchar waaye kii di madame Sow laa ren tubaarkàlla ah dalaa yàqal de waaw defal na la cere nag ana looy wax. ah xanaa di kontaan rek. di ko gërëm di ko sant mooy suñu ren mooy suñu princesse. ni kontaan si moom di fier si moom chaque jour di ko ñaanal jàmm yal na ko yàlla bàyyi ak suñu xalif bi. bàyyi ko ak njabootam bàyyi ko ak ajaratu mama Mariama mu yàgg fi te yàgg jàppale suñu sëriñ jàppale famille bi yëpp am jàmm bu bëri yàlla defal ko ay xewal yu bëri te njabootam yal na yàlla fay xolam ko yàlla aar njabootam sàmm ko sàmm njabootam. macha allah léegi lan ngay wax na international bi nag ak national bi vite fait. Mm, euh, international national maa ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di kontaan si ñëpp di fiyaal si ñëpp di leen wax ne ah ker xalif bi moom boo fi nekkee moom dangay nekk princesse ou prince ou reine quoi yëpp mu ngi fi dara manqué wu fi di ñu yàlla jox kay moom rekk la ko jox mule muley di wax ñëpp rek ñu góor góorgóorlu eh, sant yàlla julli si yonante bi sàkku ñaan chaque jour si barke suñu sëriñ yàlla nañu yàlla bàyyi ak suñu sëriñ ba ci biir àjjana jërëjëf kon soxna aadama ñu ngi lay bàyyi jërëjëf xam naa ci yeneen numéro incha allah. merci beaucoup. waaw ngeen gisoon ko noonu mbokk yi muy taalibe Alaaji Thierno Moule Sow bu mag boobu jóge fële ci France Besançon mais bàyyi këram fii ci Mamel tubaarkàlla immeuble. tubaarkàlla ñëw fii ci kër alaaji Thierno Moule Sow king of the king king all the king nga xam ne yàllaa bari doole yàlla mën a maye fii nag mooy appartement am ñu indiloon ko reer bi nga xam ne tubaarkàlla moom la ko madame Sow laa ren tubaarkàlla jéeg bi nga xam ne mooy togg ci mbana yàkk ci booli dañoo yóbbante ci moom tibbal ko boolu reer bu baax waaye tibbal waa kër gi te terewul togg nañ ci suuf ray xar tubaarkàlla kooku nag mooy madame Sow laa ren di ki nga xam ne mooy yaay rahmaan ak rahim waaye nag kenn du la maraîchar le bureau des dëmm alaaj Thierno Moulé Sow le roi médecine traditionnelle di monde bàyyi sëriñ si bàyyi jinne yi kooku mooy alaaj Thierno lay Sow ngeen teg seen baaraam foofu nes tuuti rek ma dellu si waaye nag bu leen fàtte nag taaja boo nagu ma sax mu daal di may nuyuwaale ci Thierno lay Sow moo xam teraanga dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita que te dei a ele.